que ñu ñëw seet la ngir waxtaan ak yow ci tolluwaayu malades mentaux yooyu nga xam ne ni yaa leen di sàmm ci réew mi mën nañ koo wax euh, di defendre seen intéret ah ñu amoon benn information dañ la nommé woon conseiller ci wetu euh, euh, ci directrice direction générale de l'action sociale nga doon fa conseiller di leen war a xeelal ñu amaat beneen information jékki-jékki ñu ne démissionné nga lan moo waral sa démission boobu. yéene la yéene la bu ma am wax naa ko directrice générale de l'action sociale madame Arame Top tey ci suba waaye bi ma ko ko waxee dafa ma ne bàyyil li ngay wax bàyyil li ngay wax ma ne ko en tout cas day yéene la altine bu soobee yàlla bu fukki waxtu jotee dinaa dem ministère de la santé jébbal ministre Abdoulaye Diouf Sarr sama lettre de démission ndaxte mbir mi man la ak Abdoulaye Diouf du sax man ak direction général bu sociale ndaxte laata abla Diouf Sarr ay ministères yu bëri doon nañ sàkku ñu signal ma contrat ki si mujj di aw Maricol Seck Issa Mbaye Samb ca kanamu Déthié Diouf ku ne xam na ko mooy yore parti visa Déthié Diouf dama ànd moom ak Issa ci Kaolack Issa Mbaye ne ko Anso dañ koy signal contrat foofu bi ma ko Issa Mbaye Samb waxee dama ko man contrat taxuma jog liggéeyal ñu am faible xel moom tax a jóg ma nga tey ci kër dëgg Issa Mbaye Samb yàlla ko yàlla xari ki ci mujj aw Malicol Seck son conseiller en communication mbay Diouf moo ma dugal ci bureau directeur général de la santé du docteur Diack mu ne ma Ansou dañu la bëgg a signer contrat ma ne leen mën leen ko am ci man ndaxte boobu jàpp naa ne dañu lay bëgg signer contrat rek pour nga noppi te man ñi amee feebaru xel ñooy sama njaboot man Sénégal moo ma ñor au-delà même du Sénégal Afrique moom intéressé kon tey bu Abdoulaye Diouf ñëwee mu ñaan ma ne nañu signé contrat depuis daaw la loolu depuis daaw ba ren la yàlla dogal man ak moom ak Aloyse Diouf son directeur de cabinet ma ne ko damay bañ signé te du ma liggéey mu ne ma sa expérience sa xam-xam laa bëgg Sénégal jëriñoo ko ma ne man day dama amoon yéen sax dem ci yeneen réew am naa fi bataaxal bu ñu wàccee ci suuf ma wala ko njiitu njiitu France président France daf ma bind lettre euh, Nicolas Sarkozy daf ma bind lettre bëgg ma liggéey France ñuy jokkalante ba ñu boolem ak seen benn professeur bu yor division santé foofu ba mu des lu sax ma waajal ma arrêté lépp. parce que man la may defi France ma def ko sama réew moo ma gënal kon bu ma Abdoulaye Diouf Sarr ñaanee xamal ma ne sax xam-xam laa bëgg Sénégal jëriñoo ko foofu mëntuma lu dul ma nangu bi ma nangoo ma signé contrat bi lañ may fay sax amul solo daanaka sax ay weccet la foofu ay weccet la ne bu ma neexoon ma laaj lu ma neex waaye li li ñu may jox ministère de la santé ay weccet la waaye man ma signé rek te jublu si liggéey bi. moo ma amal solo bi ma signé ak léegi ñu nommé ma conseiller direction générale bu action sociale un conseiller li may jàpp mooy da nga koy déglu mu wax la wan la yoon wi waaye ñii ma gis nii dañ may bëgg a gëmuloo dañ may bëgg a noppiloo pour ñoom ñu def la ñuy def maanaam bañ toppatoo ak ak yelleefu ñu amee feebaru xel damay wax sax ne Abdoulaye Diouf Sarr jot na sax sama lettre de démission ay weer ci gannaaw jox naa ko en bon et du forme j'ai déjà démissionné du ministère de la santé et de l'action sociale fi muy wax fi muy wax yéen nii démission bi jot na ko dama ko siiwalu toon bi ñu taxawee mu ne ma démission mënul nekk yow da nga war a liggéey ak man man ko comme mënul nekk kon nañu liggéey ma may ko benn chance waaye bu ñu ba tey jii tey jii tey fukki fan tey mooy fête indépendance ñu am xel tey mooy tabaski pour ñu amee xel tey mooy aj màkka pour ñu amee feebru xel tey mooy taxawaayu arafa pour ñu amee feebru xel maanaam bëccëg bi bëccëgu tey bi loolu lay tekki ministre Abdoulaye Diouf Sarr keroog ba muy dem Touba daf ma ñaanal ma ànd ak moom ma ànd ak moom yóbbu na moom fu bari waaw xanaa nag nit ki bu fekkee ne sa xarit la sa mbokk la mu lay gunge saa su nekk xanaa nag su bësam ñëwee nag nga ko ca mën a gunge xanaa Abdoulaye Diouf Sarr dafa ma sagalul daf ma teg gàcce dafa ma rusloo waaye loolu yëpp sax garaawul ñi amee feebaru xel seen aq ak seen yelleef man du ma ànd ak ku koy jalgati actuellement muy sama soxna su ma ay xarit sama ay mbokk dañu tiit dañu jaxle waaye man ñi may àndal si liggéey bi xam nañ ne ñi si mbedd mi man ñooy sama trésor ñooy sama alal salaire du dara ñaar fukki at toog naa ko amu salaire de deux mille à deux mille vingt ku toog deux mille ba deux mille vingt amoo salaire te ngay sant yàlla ko xam ne yàlla bàyyiwu la man dama koy wax tout le temps dama toog si kaw trésor ndaxte li ma ji ci Sénégal sénégalais gis nañ ko borom bi gis na gëm te borom bi mooy fay man ba muy tàmbali yàlla laa doon defal man ak yàlla la du du man ak keneen dafa fekk ne kilifa yi yor mbirum wér-gu-yaram laa seqal altine laa wax tey dinaa bind yéen yéen a mën naa ko sax jaaxale si yéen woo taskatu xibaar yi altine à dix heures je convoque la presse nationale et internationale au ministère la santé le le lundi à 10 su ma joxee su ma lettre de démission au ministre la santé ma génn janoog taskati xibaar yi won leen ne man lii yóbbaale wu ma li ma yore ëpp na li mu Abdoulaye Diouf di jox donc madame Arame Top Sène DG action sociale moom dafa wàccoo ak man dafa wàccoo ak ñam am xel laata may nekk conseiller la ma woo réunion. direction générale action sociale devant tous ses directeurs ñu waxtaan ci mbirum centre Kaolack bi moom mu bind note technique jox ko ministre Abdoulaye Diouf Sarr ne monsieur le ministre kër gii ci Kaolack asam di ko laaj ñun jàpp nañ ne moom moo ko moom nañ ko ko delloo yow laay dugul nag Abdoulaye Diouf Sarr boo ma nee bindal ñu delloo ko rek ma man ma bind ngeen delloo ko ko waaye ba fii ñu ci mois de mai la loolu. ba fii may waxee ne lettre ba mu ci table Abdoulaye Diouf Sarr ba tey waxu ci lenn waaye ma jàpp rek ne dañu war a ànd rek ba heure bi jot tey bu fekkee ne Abdoulaye Diouf Sarr dañu gisee dimanche avant ñu dem Touba dama def émission Walfadjri dama bind te ne Abdoulaye Diouf Sarr déchire le dossier des malades mu nekk dans le net ñu woolu ma ma fekk ko këram ba cay euh, ci kër xalifa général des Layènes moom moom moom fa jox man ak moom ak Abdou Nar son premier adjoint au maire ñu toog un dimanche matin 11h mun ma dinaa convoquer réunion ñu toog ci centre bi pour ma dellool la sa kër goo ci Kaolack tey jii nag réunion journée mondiale tey bi la lañ tënkoon comme programme mooy bu ñu defee cérémonie bi ba noppi ñu def benn table ronde sur la question des malades mentaux errants foofu occasion la woon comme moom ni nga ko bëggee woon. bu moom su président woon réunion bi tey wax na mën a jël décision signé kayit ñu delloo ma kër gi ci Kaolack ñu commencé faj do dofi ci mbedd mi waaye ñëwul ba noppi nag mu permettre ay psychiatre laa wax ay nit ñoo xamante ni Sénégal ñoru leen seen poos moo leen ñor ak seen bopp ñu ñu jalgati bés bi muy loo xam ne dafa yéeme tey dama am gàcce tey moo tax ma ne Abdoulaye Diouf Sarr a déshonoré les marteaux-manteaux le président Macky Sall a déshonoré les marteaux-manteaux le régime de Macky Sall a déshonoré le peuple sénégalais parce que tey ñi gën a ñu gën a euh, euh, ñu gën a néew doole ci askan bi seen bés ñëw ñu walan ci dooleel gannaaw ba OMS ne nañu investir pour ñam amee feebaru xel ñu agir pour ñoom maanaam nañu jëf si ñoom Macky Sall banque loxoom Abdoulaye Diouf Sarr banque loxoom ay directeur am banque seeni loxo man Ansoumana Dione man gor laa bokk mag ñiy wax muy deñ dama ne la altine yàlla nañ ko yàlla ba ñu fekk ko ak jàmm may woo taskatu xibaar yi nekk ci senegal gi yëpp ñu ñëw fekk ma ministère la santé ma dugal courrier bi laa wax ci biir courrier génn ak numéro woon sénégalais yi ne ñii ma gis nii du ñoom ñooy toppatoo ak ak yelleef te ñu ñu amee feebaru xel te man du ma ànd ak koo xamante ni ñi amee feebaru xel respecté wuñ leen moo ne day ñoom ñëpp nag kilifa tey ku ko ci gis tàmbaloo ko ci président Macky Sall ñu si baree bari ñoom ñëpp nag laa wax foo ci dem am nañ mbokk moom am feebaru xel président Macky am na mbokkam bu am feebaru xel am na frère am bu am feebaru xel comme man ni ma ko amee woon comme ni ko Sénégalais yu bari amee ñi si mbedd mi. ndax duñ ay sénégalais tey normalement buñ nekkoon ci réew bu civilisé vingt ans ku def ci xeex gis naa sànq ku def benn publication ci Facebook te man xaw ma ko muy wax ne ku mel ne Ansoumana ak ñii toppatoo am feebaru xel war nañ leen takkal ay raaya ci Facebook te kooku xaw ma man may solution wu comme ni ko gouverneur Sallou Samb waxee woon ci benn réunion ci ministère de la famille en 2006 que vous êtes la solution à l'errance des malades mentaux gis nga dof yi ci mbedd mi man Ansoumana jon suma kuréel gii di asam à part kuréel gii amul keneen ku ko mën toppatoo état bu Sénégal ci boppam malgré moyens yi mu am yëpp mënul jël en charge tey jii ñu nekk si mi taxawaalu ni ñu confier Sénélec wala SDE yeneen entreprises yi nan leen confier nan état confier ay liggéey la même chose la la association bi tey état bi waroon ko dooleel pour mu def liggéey bi moo ni day dem nañ Kaolack atelier ci centre bi gannaaw sept ans après ñoom ñi nga xam ne ñoo yor centre bi woote ne centre bi doxul lan moo koy doxal ma nekk fa que conseiller xoolal yàlla li muy def ñu jël centre bi sama loxo 2013 euh, euh, ba 2020 ba ñoo doxul kaa la ñu xool la koy doxal man ma nekk fa kilifa ci direction boobu noonu ma wan leen la koy doxal ba ñëpp ñu xam ne centre bi pour mu dox réellement il faut ñu delloo ko sama kuréel gii di ASAM kon man alal taxumaa jóg ba nii nii nii aw ma oto ministère la santé ministère de la santé joxuma bureau joxuma lenn benn ordinateur lañ ma jox te amoon naa ordinateur yoo xam ne mbañu jóob bu bu MEDES moom ma ko mayoon kon tey ji man état bi defalu ma dara état bi sàggalu ma moo ne boo demee ci Côte d'Ivoire dañ fa fekk benn association bu ñu tuddee les euh, les amis de Saint-Camille doomu béninois la Bénin doomu Bénin dem Côte d'Ivoire di fa toppatoo ñoom feebaru xel gouvernement bu Côte d'Ivoire dooleel ko tabaxal ko kër ci hôpital régional bu moom euh, bu Abidjan waa ji di toppatoo ñoom feebaru xel bañ takkal ko ay ci Italie tey dellu na Bénin dellu na Bénin pour même même liggéey boobu noonu bu mu doon def en Côte d'Ivoire fii ci fii ci fii suñu réew. man may sa sénégalais doo fi di ay sénégalais nguur gi ay sénégalais yor ko ñu ne déedéet en ce moment kenn du ko bàyyi mu liggéey dañ koy dañ koy bund xatal waaye nag nit xamoo kan mooy Ansoumana Dione yàlla moo xam kenn mooy Ansoumana Dione te lu yàlla nar ci man kenn xamu ko. waaw yow kër googu ci Kaolack yàgg nga aussi di ko ñaxtu boobu ba léegi yàgg na ndax ñu ngi koy yàgg topp mais lan moo bloqué ba ñu bañ la ko jox yow mooy li may wax sànq sénégalais moo iñaan ci moroomu sénégalais état bi Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr dañu wax ne kër gi dafa rëy huit cent millions la quatre hectares yoo xam ne ci suñ turu association lañ ko tabaxee ñu ne dafa ëpp si man ñu jël ko ci man jox ay nit pour ñu doxal ko te ñooñu ba tey fa mu nekkoon en 2013 ba 2020 foofu la nekk maanaam kër gi yëngatuwul bâtiment yi sax ñu ngi commencé yàqu kër kër kër ma nga tëjee doo mbedd mi ñi ngay dee ci mbedd mi gis nga la ñu man kenn def ma dara de déedéet sénégalais yi lañ tooñ les seize millions de sénégalais ñoom la ñu tooñ parce que bu fekkete ne amul benn sénégalais laa wax bu am xol bu sedd bu bëtam tegoo ci ak ku amee fi feebaru xel kër googu nag foofu lañ leen waroon dugal régime bi tëj ka wax naa ko de su ma neexoon am naa fitu janok Macky Sall ak ak nguuram parce que bu dee fit la maa nekk ëpp waaye dama nekk républicain dama nekk ku gëm yàlla jël lépp dénk yàlla bàyyeeg yàlla nag muy doxal parce que mbir mi yàlla kese la nag du man du Macky Sall mais yàlla la waaye nag président Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr waxoon nañoo bay seen waar pour ñu amee feebar xel ku nekk xam na ne en ce moment mooy toppatoo ñi amee feebaru xel moo leen di yiir waaw moom la lay def moom Abdoulaye Diouf Sarr la lay def moom il faut que nit ñi di poser la question mën na day ñoom ñaar la état di fay ñoom ñaar ñooy dawal alalu askan bi ñoom ñoo moome woon tey jii pour toppatoo ñi amee feebaru xel ñoom que muy Macky Sall que muy Abdoulaye laa wax tant que dof mi ngi ci mbedd mi seeni ay salaire riba la waruñu ko lekk président Macky warul tëdd benn guddi gis nga boo nee dénk ma réew ma téyil leen responsabilité la bu bu rëy rëy rëy béy bi ci àll bi sax béy bi ci béy bi xam ne mi ngi yëg bi bu daanoo damm yaay responsable wa waxuma la ay junni junniy nit nekk ci mbedd bi sous votre responsabilité nga ne yow boo tëddee guddi da nelaw Macky Sall bu doon laa wax je le répète bu doon réelement réellement am na xol moom warutoon toog benn instant te wax diisawut ak Ansoumana Dione mu ne Ablaye Wade maag moom ñu agsandoo dafa ñëw 2000 man ma ñëw 2000 en 2001 ma commencé xeex moom en 2002 mu recevoir ma Macky Sall dafa ñëw en 2012 en 2012 ma judd xeex mu jël ma dugal ma kaso dugal ma rëbës ñu àtte ma relaxé ma parce que defuma dara relax pur et simple boobu ba léegi mi ngi may dégg waaye yoonam nekkatul ci man est-ce que lii rafet na un citoyen bu jóg laxasaayu pour son pour l'intérêt de votre population parce que la population tey jii elle est sous euh, euh l'autorité de Macky de président Macky Sall nit ku jog pour liggéeyal sa sa sa xeet nga nga koy tànqamlu di ko sax kokkali parce que Macky al parfois daf may kokkali il reçoit des gens yoo xamante ni li may liggéey man moo ëpp njariñ Akon City bi gars yi di wax Akon ay Akon City nay nekk ay milliards yi milliards milliards Macky jël projet ba mais man Macky Sall waxoon na maa mën a déglu ci benn malade mantal kese parce que benn malade mantal kenn amul njëgam ci ko suuf bu ñu jaayoon alalu adduna bi yëpp laa wax waxuma Sénégal de bu ñu jaayoon alalu adduna bi yëpp laa wax pour faj benn doomu aadama am feebar xel rek jaxanu na ko tey au Sénégal ñu ngi tabax ay jumaa yu jeex ñu ngi investir si ay jumaa ñu ngi jël alal di ko dugal alors que ay doomu aadama ñu ñu mel ni yow ñu ngi fi di taxawaalu nga gëmm sey bët si ñoom yàlla nag mi ngi lay gis de yàlla mi ngi lay gis yàlla mi ngi lay gis te mi ngi lay bàyyi xel. Macky Sall na def très attention Macky Sall laa wax na def très attention parce que amatul lay amatul lay parce que dégg na ma gis na ma man je ne suis pas malade mental mësuma jël comprimé déedéet dafa fekk ne suma grand frère moo amoon feebaru xel tey man laxasaayu pour toppatoo képp ku mel ni suma grand frère. loolu Macky Sall ni mu amee man man ni ma ko amee noonu Macky Sall noonu la ko amee am frère laa wax bu am feebaru xel. kon moom itamit waroon na mun laxasaayu tey jii nekk suma wet octobre rose dafa takk euh, rose covid 19 daf ci engagé wu lan mooy tey mu engagé wu pour les malades bés bu ñu toogee nag ba malade mental def fi musiba musiba laa wax jëm ci kawam moom mën na nekk de mën na nekk de nous sommes dans un pays où tout est possible dëkk bi dof yi tey ñoo ëpp tey nit ci tey dofi yi ñu ngi so ñu ngi ñu ngi takk